làmb dafa xaraam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni boole ñaari ginaar rek ñuy xeex dafa xaraam waxatuma la nga boole ñaari ponkalu maam yàlla ñuy dóorante te ni ñuy solo rek dafa xaraam ndax dañuy exposé seeni awra du ma si sori ay doomu Sénégal lañ te ñi ngi tedd te li ñuy tedd ñi ngi ciy teral seeni wayjur kon daal ñu ngi ñaan gànt bañ see sori daal macha allah. tey bu la ñoom kenn ñëwoon seet si di nga ko ñaanal. non non du ma bu dee si wàllu bëre la ma sàkk pour ma ñaanal ko du ma ko ñaanal waaye su ma ñaanloo si wàllu àddunaam leneen ma ñaanal ko si waaye làmb du ma si ñaan ñaari nit ñi bëri waaw. tey li nga xamante ne tey maanaam ñi nga xam ne toujours ay làmb bu amee dañ ñu bëri li ñu si gis ay yeneen sëriñ maa lay bëree bëree bëri bëri jamono ji Sénégal si nekk sëriñ kenn xamul nu mu toll. yàlla bu événement am ku nekk dina génn di wax ba suñu kan bi nii sax ñu ñu ñu war a fubal àjjuma fi ñuy final ñu ne ak Algérie mais wax bu dee junj ci ay saraxu nag ak saraxu léeg-léeg léeg-léeg loo gisee yow loolu. waaw alaakulli xam nga sëriñ moom du doon sëriñu événement waaw ñëpp a ngi profité wu di nekk di wax te ñëpp li tax ñuy def yàlla taxul bëgg bës ak bëgg siiw bu fekkee nit da ngaa gisal équipe bi sarax te nee nga sarax bi lu ndaw la luñ mën a def la tey nga ko dem def si sutura sans pour autant nga sonal nit ñi bu fekkee patriote nga te yow li ngay wane ni sénégalais bëgg nga Sénégal te yonent dafa ah, bu bokk na si nga bokk na ci ngëm yàlla nga bëgg sa réew bu fekkee bëgg nga Sénégal sarax yooyu bu yow demal nga def ko bu Sénégal amee ndam ñëpp la amal ndam waaye nag maa ngi def bi loo xam ni damay avertir yenn sëriñ si am na yenn lu ñuy def yoo xam ni mën na metti seen beneen nawle sëriñ ba mu def ay affaire waaye li ma gis tamit ñoom ñëpp dañoo yéene Sénégal ndam rek moo tax ñuy def leen ne waaye am na si ñoo xam dañ siy profité wu pour yëkkatiku si te nit du yëkkatikoo noonu sëñ Cheikh Tidiane ci almaktum dafa wax ni njub njub moo gën bëri pexe waaw ndax mu ni pexe du sax waaye njub dafay sax waaw ñaankat yàlla da nga war a jub da nga war a sell di lekk lew di xattandiku lu xaram waaw macha allah tamit liñ bëgg a wax si wàllu làmb yi nit ñi chaque jour ñi ngi jug buñ jógee di wax diw mooy daan diw mooy daan te yooyu yëpp teguñ ko fenn dañuy làmbat rek. yow da ngay faral di seet wala ngay listixaar. damay seet damay listixaar waaye duma ma seetee petaaw. ndox lay seete wala suuf waaw wala alxuraan mhm, macha allah. di faral di liggéey jaar jaaro bi nit ñi bëgg. ñoo mooy jaaro bi ubbi nit ñi. Sénégal fi mu toll nii ay wax ay waxi jaaroo ak ay ndomb amatul sens man daal ñaankat yàlla laa. nit ki ñëw dina la ñaanal yàlla da ngay gis nit koo xam ne loxo yëpp boo ko xoolee mi ngi ko décoré ay jaaro ba mu fees te jaaro yëpp jëriñu ko dara kon jarul wax ay waxi jaaro ak waxi ndomba ñaankati yàlla la jàng naa ñaan yàlla xam naa ko ku ñëw xam naa fi may jaaree yow ñaanal la te damay ñaanal nit sans pour sax ma yëkkati saafara jox ko ko wala bind waaw doomu aadama moo mel noonu moo mel bu ñëwee si yow foog nga yëkkati dara dafa gëm loolu léegi waaye dañuy ñaanal nit loo xam ne si wàllu biddiwam lañ ko jaaree boo jàngee elmu nujum boo defee loolu rek li muy soxla da koy wut te doo ko jox saafara mu takk doo ko jox téere mu doo ko jox saafara mu sangoo ko doo ko jox téere mu takk alhamdulilah. mais ñi dañuy ñaan ak bi ñaan mooy maanaam seen ñaan day ñoom day nangu lañ lay wax. de ku ko wax waxoo dëgg ndax ñaan sax dafa firi boppam xam nga ñaan mën nga ñaan ñu may la mën ngaa ñaan ñu ñàkk laa bañ a may te yow mën nga maa ñaan loo xam ne su ma neexee may la su ma neexee bañ laa bañ may ñoom li ñuy ñaan moomuñu ko bay wax force yàlla moo ko moom waaw kay waaye yàlla nag dafa ne ñaan leen ma ma may leen waaye dafa am làmmiñ bu war a ñaan yàlla dafa am comportement yooyu mën a am pour mën a janoog sa borom mu may la waaw sëriñ buy ñaan yàlla ba ban comportement la war am diggante suñu borom waaw digganteem ak suñu borom mooy dafay doon jaamukat yàlla nit ku yiw di lekk lu dagan di xattandiku lu xaraam loolu mooy critère yi lii képp ku ko amee loo boo woowee sa borom dina la mën a wuyu incha allahu rabbi macha allah gars yi ba léegi ñu ngi ak Serigne Fall ba léegi dégg ngeen waxtaan yi neex na te li nga xamante ne ni tey waxtaan jaar na yoon trop liñ fi laaj lépp tontu na ko wax na si làmb ji nee na mu du ñaan si làmb mais boo ko ñëwee nag seeti ko si yeneen façon ñaan di la ko ñaan sa ñaan mbaa du fayee ko nit loo am na borom am ñoom ay ñoo doole lañu am nañ problème bu ñu ñëw ñaan si mais amuñu. waaw loolu moom ñaan dafa dépendre si nit ki rek doomu aadama li nga am rek. te yàlla xamal la ko si nga mën a jëriñ nit ñi dañuy ñaanal ay jaamu yàlla yoo xam duñ ñu jox dara sax waaw nit kon ku yor mbaax des fois bu nit ñi ñëwee ku amul di nga ko dimbali loolu mënut a ñàkk si liggéey daal incha allah rabbi kon sëñ bi dañuy fàttali numéro téléphone bi ñu joxe numéro bi. waaw 802 39 39 ku soxla sëñ Fallou ngay woote si